asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki Ndakaaru mbokki région yi ne Sénégal yépp léegi lañu ñu pare réunion bi ñu doon def ak lenn ci imaam yi ak ay lenn ci kilifa diine yu ñëwoon tey teew si waxtaan wi nag léegi la pare ngir jaaxle rek ay dégg-dégg yu ñu dégg démb ak tey muy ay complot complot yoo xam ne dama ragal ne ku bëgg Sénégal bëgg jàmm ci réew mi dinga nga arrêté mbiri complot loolu nag tiital ñu ba tax tey ñu dellu siwaat donte kon waxoon nañ fan yii waaye nag réew mi ñoo ko moom mënuñoo seetaan réew mi mënuñoo seetaan yàlla dafa ñu sant ñu jóg ci xanam buñ ko mën a defee te muy jàmm fexe ba lu bon du tàbb ci suñu réew fexe ba ay complot du fi dox te réew mi nag fan yii yëpp li ñuy dégg ci médias yi di ko gis ñu koy bind lépp ay complot la Sénégal nag waruñu ko yor ci ay complot ak ay pexe dama bëgg nag loolu ñun ñëpp ñu bokk ànd ci fexe ba bu mu fi am suñu ñaari ancien président yi waxoon naa fi jamono yi passé li xew ci ñeenti at yii ci ay xale yu ñu rey ci ay xale yu ñu dóor ay xale yu tëj kaso dem ba presque mille huit cent personnes yu tëj leen kaso su ma dégg ci ñoom kenn ku jóg def intervention bu dul bi nga xamee ne am na benn mbokk moo xam ne dañ ko rakkale ci problème mu nationalité diw dafa am nationalité France diw dafa am nationalité nangam ba ñu wax ne dañ leen rakkale boobaak léegi nag suñu ñaari présidents yi amatuñu jàmm suñu ñaari ancien présidents yi amatuñu jàmm loolu nag daf ma jaaxal ndax lu toll ni juróomi at wala ñeenti at ñuy dóor di rey di tëj di bund xatal nit ñi di toj oto jàmbur yi di fekk ni ci biir otoom toj ko sotti ko liquide ñoom kenn ngaangu ci ba léegi nii waaye bi ñu rakkalee pour problème nationalité rek coow li commencé jóg ay plan yu dul jeex ba démb sax maa ngi gis ñu bind ne ñu ne ñaari ancien président yi dañu bind d'accord ne élection yi dañ ko war a yóbbu ba 15 décembre mel ni affaire bi ay complot la yéen ñëpp xam nga ne loolu complo la te français yi nekk seen gannaaw boo ngeen seetloo président Macky Sall li mu lii ñoom ñaar wax nii benn la. ma bëgg nag yéen waa Sénégal nag ngeen delloo seen xel yeewu gis ngeen makki Sall mii président de Sénégal dafa jeexal liñ seqoon nag moom mooy ñaari mandat moom sax am na ñaari at yi topp ndax cour constitutionnelle dañ ko ne mënoo wàññi mandat mënoo yokk mandat juróomi yi nga wax mënul nekk juróom at yi mënuñu ko wàññi mënuñu ko yokk noonee la mel ba léegi nag mënul yokkal boppam di fi toogaat ñaari màndaa la def jeexal na makki Sall demal. amul nag leneen lu ngeen koy may di bay bayaal muy indi ay pexe dégg naa sax ñuy wax affaire Ousmane président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko doful nit la boroom xel la boroom xam-xam la wóor na ko ne liñ ko def ren daaw ak ren ñetti at yii dem ba toj otoom dóor avocat bi mu àndal jël liquide sotti ko seen kaw mu tëdd ci hôpital ñu tëj cent personnes ci kaso bi ñoo xam ne tey gannaaw yàlla jëmmam jee tax am ci ñu faatu. kooku soo ko nee nañ waxtaan nañ négocier xam nga ne loolu du ko def. ndax parti am teg ca ñu naan ex ex euh, Pastef. dàq ko fa muy liggéeyee daq képp ku ànd ak moom koo xam ne sax yaa ngi liggéey ci administration bi sax buñ la dégloo téléphone wala ñu yott na rek ànd nga ak Ousmane ñu dàq la toroxal la humilier la waaw loolu kuñ ko def Ousmane Sonko doful ba nekk ci kaso bi ñu naan dañuy dem di négocier ak moom pour nangam nangam Ousmane Sonko wóor na ma ne xelam dañu loolu Macky Sall ko fa dugaloon. na ko génneel boppam xam na fa mu jaar ba dugal ko fa na xam fa muy jaar ba génne Ousmane mais liñ ko def moom président Ousmane ko fitna biñ ko teg teg ko njabootam toroxal ko barkaade këram. mu bëgg julli ji ñu ne ko doo julli ji ni julli fooree kar ko ne ko doo julli ji ay doomam mënuñoo jàng fitna boobu kuñ ko teg ay Sénégal yi jóg naan dañuy jaar fale pour négocier lan ngeen négocier. baleen Macky Sall mu génne Ousmane xam na fi mu jaaroon ba dugal ko ci kaso bi accusation yi yaa def lii yow le ndaw si nàngam yaa dugg fii yaa sàcc ci portable loolu yépp ñu teg ko nit ma bëgg nag réew mi ñun ñoo ko bokk mënuñu ko seetaan te foog ñu wax gis ngeen président de république yaa ngi fooye Sénégal nag dëgg dëgg dëgg fooye Sénégal nag te ñi ànd yow naa dañuy négocier ñu ngi fooye Sénégal ah parce que lii yomb naa réglé yow jeexal nga jëlal sa bagage nga dem élection yi cinq février bii nañ ko def 25 février bii bu ko kenn toxal yow calendrier électoral nekkul ci sa loxo yow cour constitutionnelle moo la fal cour constitutionnelle moo faloon tey suñ ñaari président yii fi nekk nii. cour constitutionnelle moo nekk ci sa kaw yow naka ngay mën a yow nekkee yow mel ni yaay yilif cour constitutionnelle yaay dogal yaay buum yaay bumi yaay jox sa bopp nii laa war a yokkee damaa bëgg dem ba 15 chambre 2024 yow amoo droit loolu cour constitutionnel moo am droit bi te cour constitutionnel du def loolu ñaare bi te mooy monsieur bi maa ngi lay sant ku baax nga suñu mbokk nga suñu doomi ndey nga mais yow boo amee loo xam ne yaa ngi koy négocier Casamance ñetti weer a ngi nii batt bi dawul dégg nga am na kaar yoo xam ne doxul ni ñu war a doxee matière bi ñu daan soxla ay géej yi lëjum bi jigéen ñi daan ci jaay di xéwlu mënatul ñëw seen Casamance boole keneen kenn mënatul liggéey xale yi ñu ngi leen di sonal bi ci mujj mooy fan yi paase rek lu nekk xew na biir Casamance yow soo amee loo xam ne danga koy dox li njëkk a nekk priorité mooy waxal ci problème mu Casamance wax cee Macky Sall na bato bi doxaat na doon doxee na Casamance roulé waat na doon mel na ñu teggi fitna yi ñu teg ci kaw waa Casamance yi ak waa Dakar yi ñëpp yow boo amee loo xam ne yaa ngi koy waxtaan monsieur Goudiaby foofu lañ ko gën a soxlaa waaye négocier lu jëm ci Walfadjri négocier lu jëm ci affaire diggante Ousmane Sonko Macky Sall moo dugal Ousmane Sonko kaso balaa mu ko faa dugal lu ne xew na toj parabris oto buqi ni ki génne ko humilier ko muy julli yi nga ne ko doo julli yi xañ ko boppam 1800 personnes tëdd ci kaso bi am ñu dee loolu est ce que loolu des na ko négocier. jéem ko jiñ ko viol ni viol grave waaw loolu yow monsieur bi moom nga bëgg a waxtaanee. moom nga bëgg a dem négocier ko kan nag euh, Ousmane président Ousmane Sonko du ko nangu. ah ba pare accuser ko li gën a garaaw mooy terroriste waaw loolu yëpp yéen ngeen xam ko suñ ñaari ancien président yi loolu yëpp fi la leen fekk moo mosu leen cee ngaan te Macky Sall kii ngeen di kàmbal pour mu bokk ci élection yi Macky Sall ko accusé ne dafa sàcc alalu Sénégal dafa détourné dafa def détournement dañuy public kilifaay diin yëpp wax mu të ñaan mu bañ nu mu def. dugal ko ci avion yóbbu ko doo Doha te avant loo tëj na ko un an kaso tëdd na ko ci kaso bi ba pare jël alali réew mi yebal Antoine John mii mu wëndeelu fu ne mu dem réew mu ne mu taxaw fa muy fere yu bari ci keesu Sénégal fere yooyu yéen kan ngeen ko bëgg a teg dañ ko bëgg a perte alors que ñi ne dafa jël ñi ne 138 milliards ñi ne 130 milliards dara leeru ma ci waaye ñëpp dëgg nañ loolu ci détournement dañuy pil li mu toll. yow yaa ko waxal sa bopp ne dafa jël alal réew mi wax ko waa Sénégal yépp waaye wax jooju yow da ci bëgg a génn la nga waxoon da nga ci bëgg a génn monsieur le président yaa waxoon ne kii dafa jël cent trente huit milliards yaa waxoon ne bi ñu waree ba wër ba sonn ba seet banque yeeg yépp ay Monaco ay fu ne liñ gis mooy jël na somme bii kon sàcc la nga daal di ko génne dëkk bi ah ñëpp jàpp loolu. nga demati ba élection yi sa date bi élection yi jeex nga ne da ko bëgg a indi faas ko ne ko la ma waxoon ne yaa jël léegi maa wax ne mosoo jël waaw xaalis bi nga xam ne moom la Antoine di ciy def ay fere ak li nga xam ne moom la wax ne moom la xale bi jël léegi loolu moom yow foo koy bëgg dugal loolu yëpp am nga bëgg fexe nag ba sukkandiku di toxal ay élection di def ay affaire assemblée nationale di ko compolo suñ ñaari ancien président yooyu parce que xam ne li ci réew mi mais mosuñ cee ŋaang. ak waa PDS ak parce que nag ñun duñ tuumaal kenn duñ dépassé kenn waaye nag dañu bokk ci kilifaay réew mi war a wax lii ñuy wax nii waxuñ ko ci politique dañ koy wax ci wàllu diine juñ bokk parce que lenn ci kër yi diine yi ak ci quelques imam yi ñun ñoo dajawaat tey parce que mënuñoo toog dégg ay wax yoo xam ne daf ñu jaaxal ñu ngay négocier ñu ngay def lii am ñu lettre bi ñu gis ñu bind ko ci internet bi ñu ne waaw ñaari ancien président yi ne nañ nañ def nii nañ def naa nañ naxante ba yóbbu affaire bi deux mille euh, quinze décembre deux mille vingt quatre mel naka dafa am waxtaan waxtaan ca Paris te dafa mel ni français yi ñu nekk seen gannaaw Sénégal yi nag dafa ñu du ñu ko nagu li ngeen bëgg noonu du fi am élection yi kenn du ko toxal Macky Sall jeexal nga te nag dinaa leen wax. yéen a ngi naa le 2 avril da ngay xam ne yéen waa Sénégal am leen takku gu mat sëkk fas yi na taxaw temm xuli seen i bët. ne ko nag yow sa mandat jeex na yéen société civile bi yéen politiciens yi ngeen la waaye ànd leen nekk benn baat Macky Sall mii dañ koo faloon ci ay conditions yu wóor cour constitutionnelle fal ko ci conditions yu leer mooy ñaari mandat vingt cinq février 2024 mooy fixé bi nga xam ne ci la Macky Sall war a jeexal léegi cour constitutionnelle lépp ñeen yéen a fi xam ngeen li xew lii amul sax di wax waxaat du ñu commencé nangu ñun lenn ci kilifaay diine yi taxaw nañ temm temm fii ba Ziguinchor fii ba Kaolack fii ba Tamba ñu ci bëree baree bari ànd nañu ñun ci wax jii gis ngeen duñ tooñ kenn duñ dépassé kenn waaye réew mi nag buñ ko yàq wax nañ ci nag ba sonn depuis juróomi at wax nañ guddi wax nañ bëccëg Macky Sall bàyyi lii Macky bàyyi lii Macky Sall ci histoire la jëm lii ci xeex la jëm mu lànk ne du déglu ba tey ay bakkan rot kon nag yéen yi ma dégg ne yéen a ngi dox ay ay wax muy monsieur Goudiaby suñu mbokk suñu xarit ñu si monsieur Alioune Tine tuddeekuma lu jàmm nag ndax réew ma dañ cee bokk gis ngay def lu baax di ko wax wax nga ne Macky Sall APC la bëgg Macky Sall bëggul APC déedéet loolu Ousmane Sonko ko soxla Macky su ko bëggoon du xaar ba ay xale di dee ñu tëj ay nit kaso 1800 personnes depuis ñaari at ba pare mu dem ba mandat am jeex mu bëgg a indi ay tànk bukki koo koy bëggul APC monsieur Tine bu leen waxati loolu APC bu ko bëggoon tey jii bëgg jàmm kon fitna bii du am. bu leen waxati loolu mukk ci àdduna te Sénégal kat ñoo yéen a ko bokk te lu ci waay yëkkati dañ koy xam tooñu ñu kenn nag waaye dañuy yor ay nopp di dégloo réew mi ñu ngi ko bëgg a yàq ci ay caaxaan Sénégal buñ ko jël ne dañ koy def ay négociation ay wax senegal du dëkk bu ñuy fooye ay waxtaan ay négociation duñ ci yor réew ay tappale duñ ci yor réew tappale yi na arrêté. yéen xam ngeen ne fan yi passé dégg ngeen coow li tappale yi tax na gis nga yàlla bu lay wer. yàlla mooy buur yàlla lépp loo nas te dëgërut da koy dóor martu ci digg bi mu xottee ko fan yi gis ngeen député boo xam ne tappal yi noonu def ci assemblée bi yépp fexe na ba di ko waxtaanee ba mu senn ba ñëpp jot ci ngeen xam ne lii lépp ay diil la woon ay tappale député bi ko def xam ngeen ko ñëpp a ngi koy déglu pour lan nañ fexe ba élection yi tuxu ndax suñu waa ji bokk kere ba loolu amee su ñaari président yi commencé nag fireeku commencé di wax waaye bi xale yi de ci mbedd mi kenn waxut ma ne nañu bàyyi caaxaan yii monsieur le président de la république Macky Sall jeexal nga bàyyil pexe yi na arrêté 25 février na élection yi am nous nous demandons tous les internationales CPI droits de l'homme CEDEAO les Sénégalais o pour sénégal vous venez pour pour nu juger parce que Macky Sall li muy def yéen kay. comment la situation des Burkinabés et le, Burkina, le euh, euh, problème encore de, de, de Niger et de Mali CEDEAO taxaw temm ne day dem attaque ji Burkina day attaqué Niger day attaqué Mali alors aujourd'hui Macky Sall il a fait coup constitutionnel mais quest que votre intervention il ou Yaya Jammeh fii la Macky Sall jógee dem jëli Yaya Jammeh Banjul guddi forcé ko mu génn Banjul tey def na lu gën a pire il est au CEDEAO Voilà le problème, parce que pourquoi Burkina, pourquoi Niger, pourquoi Mali, il peut sortir dans le CEDEAO à cause de ça Parce que vous, vous venez pas encore et, eh, être encore normal. Parce que comment maintenant, vous regardez Macky Sall, vous faites de, nous frapper, de nous humilier matin et soir vous, CEDEAO. Vous ne dites rien. aujourd'hui demain aujourd'hui demain aujourd'hui demain le temps il commence à continuer le temps il commence à passer parce que le 25 février il reste un petit peu de jours il faut exiger Macky il n'a qu'à régler le calendrier le 25 février pour l'élection c'est ça que nous demandons mais CEDEAO mais vraiment CEDEAO tous les Sénégalais maintenant vraiment ils n'ont pas encore confiance actuellement à CEDEAO parce que même Macky Sall mi il a parlé du son pour aller attaquer Niger Voilà, aujourd'hui il a fait coup d'état coup d'état constitutionnel directement ngeen gis lépp voilà le problème de CEDEAO de toutes les façons on demandait l'organisation internationale CPI et droits de l'homme tout pour venir à Dakar pour régler les situations qui actuellement passent au, au pays parce que c'est très mal. comment maintenant ngay def affaire boo xam ne yow yaa ko teg yow monsieur le président de la yow yaa def sa affaire ba pare nga ne nañ ko waxtaanee chaque jour rek nga génne benn pexe pexe yi na jeex sa mandat jeex na def nga ñaari at def nga ñaari at ñaari mandat def nga ñaari mandat teg ci ñaari at donte kon ñaari at yoo sax mën nañ ko bañ a lim parce que cour constitutionnelle nee na la juróom-ñaari at nga mën a def def nga ko li nga mënoon nag li nga mënoon toon yépp def nga ko mu jeex gis nga lu ñu bëgg Macky Sall bu yàq suñu réew. te policiers yi ak gendarme yi maa ngi desuwaat ci yéen Sénégal ñoo ko bokk am nañ ci njaboot bàyyi leen li ngeen di def réew mii même buñ la def loo yenn yi te nga xam ne yow réew mi yéen ñu ñoo ci bokk yem problème bi xew ci réew mi Macky sàll moo ko indi moom moo dem ba mandaam jeex mu ne du bàyyi di bëgg a yokkal boppam ànd ak ay nit complot assemblée pour di indi ay pourtant léegi barki démb dégg ngeen ndaw si leeral na lépp. ñëpp dégg nañ li wax ñëpp xam nañ ne affaire bi ay complot la woon. kon nag maa ngi dellusiwaat ci suma frère yooyu nga xam ne dama leen sopp muy ñu baax muy monsieur Goudiaby monsieur Ousmane euh, euh, Alioune Tine xam leen ne su ngeen di waxtaan waxtaanee leen Macky Sall Macky Sall rek ngeen war a waxtaanal Ousmane Sonko amul lenn lu ngeen ko war a wax Ousmane Sonko jàmm la woote jàmm la yàgg a woote. fee mu dem ne Macky Sall ko forcé yóbbu ko fa jaay ko doole ah ngeen bëgg lan. la ngeen di négocier Sénégal bu ñu ko def ci ay négociation Sénégal dëkk la boo xam ne dëkku kilifay diine yi ñi fi nekkoon dañu fi liggéey loo xam ne loo am solo la kenn du foye dëkk boo xam ne maam si Amadou Bamba daf ca sonn maam alaaji Malick sonn ci maam Limaamu Laay sonn ci maam Khalifa Niass sonn ci alaaji ama dem Soko nag dégg maam alaaji ama daw da kilifay diine yëpp dañu jaay seen deret ak seen coono ci réew mi pour réew mi baax koñ bu nekk yu taw fa jàkk naa si xaq bi xaq jàngal nit ñi xam-xam yar nit ñi ci diina yéen ngeen bëgg koo def ay négociation bu ñu def affaire négociation di waxtaanee ay négo d' accord waxtaan mënu ñàkk mais waxtaan fa mu war a amee mooy woo leen Macky Sall ngeen wax ko dëgg bàyyil Ousmane Sonko bàyyil Bassirou Diomaye Faye bàyyil ñu ne ci kaso bi yëpp ñu ñibbi tëjee wuñ leen dara yéen xam ngeen ne mboolem ñu tëj kaso dañ leen a jaay doole yéen kese ngeen di négocier kay négocier nag président de la république mais lu ngeen négocier Ousmane Sonko Ousmane dana génn Ousmane Sonko dana génn loolu jarul yàkkamtee wax Ousmane Sonko bu génn na génn ci dignité mais bu génn ci affaire ay négociation ay waxtaan non soxlawuñ loolu Ousmane Sonko dana génn jëru yàkkamtee wax Ousmane Sonko soxlawuñ mu génn ci ay négociation dañ koo tooñ dugal ko ci kaso bi ci jaay ko doole su ngeen bëggee wax waxal leen ko ko fa dugal ba pare dugal ko ci ay tooñ di ko accusé viol accusé ko ci portable toj otoom gaañ aw kaam mais yéen ba ngeen di négocier kan ngeen di négocier kan ngeen di négocier ci kaso bi Ousmane ko déedéet te xam naa Ousmane Sonko deful wóor na ko ne la ko dugaloon foofa ña ko fa dugal nañ ko génne nañ ko fa dugalee xam nañ ne fañ jaaroon ba dugal ko fa nañ fa jaar génne ko bu ko defee nag ñun duñ seetaan benn yoon monsieur le président de la dañ la soxla ci la nga waxoon nag ñun constitutionnel jox la ko muy ñaari mandat jeex na amul ay négocier amul waxtaan amul yéeg fii amul wàcc fii parce su ngeen ko bàyyee mu jëmale ko le 15 décembre li leer te dana ci génn indi problème man maa leen ko wax te yéen xam ngeen li ma wax bu baax su ngeen ko bàyyee wala ngeen déglu si ñaari ancien président yooyu nga xam ne kenn mësu leen dégg ñu wax kenn mësu leen a dégg ñu ŋaan ci li xew ci réew mi ñaata doomu aadama ñoo dee ñaata doomu aadama lañ tëj kaso ñaata doomu aadama lañ toroxal ñaata gendarme ñoo daw dem Amérique ñii police yi daw xaw fii ñaata xale ñoo daw génn réew mi asil ana yéen fu ngeen nekkoon xaar nag ba nga xam ne tey seen doom dañ ko rakkale pour affaire nationalité ñu ne léegi bokk na ngeen commencé firéeku di wax naan waaw affaire bi ñu ko mën a pour sax ba 15 décembre loolu ay deal ay complot la loola yëf yaa nga ca France Sénégal yi dofuñu duñ ko nangu ñun luñ soxla mooy élection daar daar lañ soxla daar daar élection daar daar keneen ñëw Sénégal am kar kar bu bees opposition bi man yaakaar naa ne jëruma leen di wax dara ndax négociation bii ñu leen bëgg a dugal bu ngeen ci liggéey billaahi wal kitaabi alquraanu karim laa leen di wax billaahi Macky Sall ngeen di dimbale parce que fu mu jaar ba rocceeku lay fexe mais yéen nag xanaa ku ndomi rey sa maam xanaa boo si te aw xiin da nga daw yéen négociation yoo xam ne bu dégg ba moom bu jaaxlee rek li muy def mooy woote négociation bu ko defee am ñenn ñu noo xam ne ni dañuy dem dégg naa sax naan man damay dem boo demee tooñ nga Sénégal yépp parce que yaa ngi joxaat Macky Sall pour mu am possibilité defaat lu bon soo demee tooñ nga Sénégal yépp te yow xam nga ko yow parti politique yi nag ku ci so ku ci rocceeku di jéem a nax say morom di jéem a rocceeku yaakaar na am nga mbooloo parce que ñi may wax dañu xalaat li may wax bu nit ñi àndee nii rek nga aw nii bu nit ñi jaaree fii rek nga jaar nii da ngay perte rek Sénégal yi ñu ràññi nañ la xam nañ la te nag doom ju baax nga ci réew mi nga dëkk bàyyi façon jikko boobu àndal ak nit ñi gis nga béy su àndul ak gàddu rek ànd ak cere yi. béy bu àndul ak gàdd ak béy ga rek ànd ak cere yi xam nga loolu wax la boo àndul ak nit ñi rek état dana la utiliser ci loo xam ne da ko réccu am na ñu xam loolu am na ñoo xam ne ak si nañ leen fi xaalis ñu nekkoon fi ay maire waaye léegi wóor na neen ne dañ la nax wóor nañ ne lañ leen doon wax dara amu ci yéen man ngeen gis benn nit nekk Sénégal gii fukki at ak ñaar di windeel Sénégal yi yëpp négociation nañ waxtaan nañ diisoo mais li nga matt doo ko bàyyi yow loo matt rek da ko dagg ba léegi nii nga ne yow da ngay négocier junne ak nit ay doomu aadama ñu ngi ci kaso bi tëdd nga ne ku loo da nga ko def di négocier barki ñetti xale dee nañ bali fetal ñaata nit ñoo dee ca gannaaw ci benn réew moo xam ne ñoo bokk ba pare nag nga dóor gaañ blessé tëj ne nañ kaay leen di négocier bëggoo ko bëggoo négocier monsieur le président de la République bëgguñ négociation yéen parti politique yi. maa ngi leen di ñaan lillaahi sol yii na ñëpp taxaw lii ñuy bëgg a def bu mu am bu mu jàll buñ ko nangu réew mi ñoo ko moom Macky Sall wala jeex na léegi fi mu ne amatu fi dara ñaari mandat yi jeex na téye leen seen loxo ngeen taxaw ñëpp jóg taxaw taxaw temm te bañ nag di joxe rendez ba pare doo génn wax ba pare doo génn déedéet ma ne suñu Sénégal gii waaye ngeen la waaye jaaykatu caaf yi jaaykatu gerte yi jaaykatu fëgg jaay yi bu leen dem di jaay seen fëgg jaay ba pare xale yeen yi jóg te yéen ngeen ne ngeen di profité am xaalis te li ñuy kaas kaas boobu yéen ñëpp ci ngeen bokk Sénégal nañ ko boole ñu ñëpp ànd bëgg ko bu nit ñi nañ jóg ni ñëpp jóg taxaw waxuñ ku yàq waaye nañ taxaw suñu réew mii ñu jëlaat ko téye ko suñ loxo waaye yow booy def siyaare wala ngay def gàmmu yaa ngi profité naan xale yi bu leen xeex xal yi bu leen def lii ah xam nga ne li ngay def noonu tegoo ko ci dëgg tegoo ko ci yoon. yàlla moo santaane tey nit ki inna laa laa yuxayyiru maa bi qawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim yàlla du wàcc di la fajal dara yaa ko fajal sa bopp boo amee sa conférence wala nga am sa cant wala nga am sa cérémonie religieuse yemal ci la yàlla sant xaala laahu xaala rasulullahi mais doomu réew mi sa yoon nekku ci xale yi li ñuy kaas seen droit la ñii ñu ngi leen tëj ci kaso bi ñii dee nañ ci géej gi ñii dee nañ ci bali fatal nga bëgg lan nga bu kenn yëngatu sol sa garaam bu nag ngay faax nag ne bu kenn yëngatu kenn may luloo tooñ nga tooñ Sénégal tooñ nga leen kenn kontaanul ci li nga def kenn kontaanu ci xaala laaw xaala rasulullah yi xoote nga mbooloo xooga xoote nga kii yàlla waxal ci yàlla ak yonent yàlla Muhammad jeex na leneen liñ ci doole bokku ci te moo mënoo kenn mënoo defloo kenn lenn Sénégal yi réew mi fi mu ne kenn lekkatul kenn naanatul ñëpp a ngi jooy dem ba benn handicapé handicapé nga xam ne mënu sax dox ma gis ñu koy brutaliser ci puus puusam bi xam nga ne loolu ñaaw na trop xale bu jigéen boobu ñu topp ko di ko dóor bërki de Mbodj Ndiaye on appelle CPI on appelle droit de l'homme comité international tout les monde parce que maintenant Sénégal c'est très chauffé parce que le président de la République nous fait trop mal nous sommes trop fatigués nous sommes trop fatigués parce que il faut que ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo fi bokk yem Macky Sall gënu fi kenn daf am ndey ak baay ñu am fi ndey ak baay mu am fi cër ñu am fi cër ñun duñ tooñ kenn def nga ñaari manda soutenir nañ la ci lépp yow ñii ngay tuumaal waa cour constitutionnelle yow ñi nga àndal ñoo fi dàq sàcc huit dix mille milliards sa mbokk sàcc na ko boo ma ko waxtee moo moo yóbbu la police loolu la wax yow sa bopp nga ne am na ñoo xam ne dañoo luubal maa ci teg sama conc Prodac ay milliards la détourné ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw ñooñu waxoo ci ñoom dara ngay tuumaal cour ñoo ñu ay gor a fa nekk man xaw ma leen xamuñ ma mais ba ma déggee cour constitutionnelle ba ci njooni tey jii mosuma dégg ku leen tuumaal xaalis leen laa ko doo a dégg te dara defe ko nag lu rut ay nit ñu bëgg dugal seen doom kese di jët benn plan pour ñu sukkandiku ci tas assemblée bi créer beneen loi waaye léegi assemblée loi bu ñuy watee ngay yebal gendarmerie ñu dugg ci biir ak police jàpp opposition bi dugal leen ci biir nag tëj force gars yi la ñu watee fa ngeen mas a gis loolu ci àdduna monsieur le président de la république yow sama fa xam ne loolu jaaduwul. Cheikh Thioro Mbacké sama jarbaat maa ngi lay nuyu di passage sa buntu bi ñu forcé ko xam nga ne loolu ñaaw na trop ci assemblée bi nga boole ko yar ak teggiin parce que loolu leen lay jàngal. Ismaïla Diallo liñ ko def ñaaw na tamit na ñëpp di ko gis waaye yéen da ngeen bëgg def lu leen neex ngeen kenn du wax loolu mënul nekk amu leen barke boobu billaahi walaahi wal kitaabi mënu leen ñu tere wax barke rasulullahi lu ngeen def ci lu jaaduwul daañ ko wax. gis ngeen tappale yi ak caaxaan yi na arrêté Sénégal gii du Sénégal gu ñuy foye yéen ko bëgg a foye mais kenn du ko nangu pour tiital li ñi gaañ ci ay nit bu ko def ñu dale gannaaw kenn du dale gannaaw liñ la joxoon jeex na bàyyil monsieur le président de la République ñaari mandat nga am droit jeexal nga amatoo droit di jéem a def leneen bëri ci gaañ ay nit amoo ci droit CEDEAO yéen yéen a ngi seetaan lii ba pare di bëgg a attaqué Niger di bëgg a Burkina wax naa ko waxaat ko mais projet baa ngi Sénégal qu'est-ce que vous faites actuellement avec Macky comment la situation de Yaya Jammeh ils rap euh, rapatriés pourquoi léegi Macky Sall def coup d'état constitutionnel waxu leen dara bu ngeen continuer léegi ci diyaaw dana tas bu ngeen ci continuer ci diyaaw tas parce que dëgg nekku fa bu fa dëgg nekkoon bu nit defee. coup d'état constitutionnel ngeen taxaw ne ko hé senegal am leen fulla ak fayda ànd leen nekk benn bopp gis ngeen lii bu lawee ñun ñëpp suñ ko walee daanu xoolal xale yi ñu doon fetal ñu ngi ci bàmmeel fi ne ñu leen teg fi ne war leen a suul ci loo xam ne yow président de la République jeex na yow teraanga bu bu jinne defal leen ko Sénégal mbas mi waxoon naa ko fi. jox la loi boo xam ne loo bëgg a def defal bu tàggu kenn xanaa loolu gisoo ko woon teraanga jooju bàyyi la avion bi ngay naaw gu dégg ba cëg lu ñoro lu ñorut foo bëgg a dem dem sa jabar gi di dund ci xaalis bi say bokk di dund loolu yëpp doyu la nga dem ba sa mandaa jeex nga bëgg a indi ay caaxaan parce que li ngay def nii duñ ko nangu ñu duñ la ci seetaan benn yoon nag te duñ ma sa tayal waaye maa ngi delluwaat suma frère yu baax yooyu monsieur Alioune Tine la yàlla fay monsieur Bo monsieur Goudiaby jàmm rek laa leen tuddee nag jàmm dama dama bokk yéen réew mi comme nag da ngeen a dugal seen loxo moo tax ñun itam ñu wax kàddu jëme ci yéen kàddu gën kàddu jàmm rek la su ngeen bëggee négociation waxtaan leen ak Macky Sall ci boppam Ousmane Sonko amul lu muy négocier dañ koo tooñ dugal ko kaso xañ ko ay droit am yépp ko toroxal ko accuser ko viol tooñ ko nga ne da ngay dem négocier looy wax ak moom boo demee kaay nii naa naa kaay si ñu fii kaay si fii Ousmane Sonko moom xam na ne kaso bee la fa tëdd gannaaw yàlla jëmmam ji la ñi dee ñu dugalee ci bàmmeel gannaaw yàlla dañoo mer di kaas liñ ko teg ci naqar ba ñu rey leen ñii ñu tëj kaso ñu gis liñ teg Ousmane ñu mer di ko kaas ñu tëj leen kaso ñenn ñi ñu faagaagal leen su ngeen bëggee négocier négocier la nag président de la république wax ji foofu la nekk moom mi nga xam ne moo yore caabi ji nee ko caabi ji pare nga ci dellool caabi ji ñu seet keneen ku ñu jox magasin bi kon ni ma ko waxoon barki démb mais Ousmane Sonko amul lu muy négocier ba négociation ki ko dugal na ko génne xam nu mu ko génnee mais yéen opposition bi maa ngi leen di ñaanati ci jëmmi alquranul karim wala boog ci jëmmi biibal bi ndax suñ mbokki chrétien yi léegi kenn waratu leen a fatte ay nit lañ yu sell ay nit lañ yu gore ay nit lañ yu baax ay nit lañ yu bëgg jàmm. ay nit lañ yoo xam ne ñoom du ñu làqatu di wax ci suuf ñoom bu wax jotee day wax ca kaw ñëpp dégg député suma maam Alaaji Abdu Si Dabaax ku leen joxoon respect la ak suma maam Abdu ñu baax ñooy le yàlla ñu leen yàlla fayal moo tax su ma waxee dama leen di tudd ñu gore ngeen ñu sell ngeen waxati dëgg ngeen fu Sénégal ma sa yëngatoo wax ngeen ñun ñi wooyee nit ci diini yi nag ñun dañuy complot rek complot rek ak président bu maa doon ñu complot moom bu président bi jeexalee su beneen ñëwee ñu ne ko di complot moom complot rek la lu dal xale yi ñun ñii ñoo ko def man ci laa bokk de lu dal xale yi rek ci fitna rek ak dëkk bi rek ak yàqu gu Sénégal yàqu ñun ñii ñoo ko jiite man ci laa bokk de ñun la ñoo ko def ñoo war a wax te waxuñu fu ngeen ma a gisee président bu bëgg def dara dem tàggu sëriñ ba pare ñëw nga war a bàyyi la nga doon bëgg a def nga def ko ah kon kay loo fa jëlee damaa bëgg dàq élection yi nga dem tàggoo daal di ñëw dàq ko. kon kay xanaa ndigal nga fa jëlee yow kay soo ne maa bëgg a toxal élection dem tàggoo boo ñëwee rek da nga caa war a génn ñu ne ah demoon na tàggoo ji waaye génne nañ ko ci la bëggoon def ma ne dëgg yàlla moo ko moom man ko minkum munkaran fal yughayyir bi yadihi jooju waxoon naa fi barki dem ma ne chrétien yi ñoo ko doxal ñu ngi sant waa senegal yépp ci seen taxawaay di sant waa bitim réew ci seen taxawaay góor jigéen mag ak ndaw noppaluwu leen nelawu leen seen xol na xari na ñu ngi sant itam madame Mimi Touré. a ngi gërëm soxna ay Aïda Mbodj ci confiance bi nga xam ne Sénégal yi xam nañ ne nit ku dëggu la di gërëm soxna Mimi ture ci njàmbaaram ak ci dëggoom ak ci wax dëggoom di gërëm nag mbooleem nag ensemble des politiciens yi yépp waaye nag ci kaw bu leen dem benn yoon mais yéen président daal li mu def Sénégal yépp ngeen ngeen bëgg a négocier moom yéen xanaa seen xel warul xalaat loolu arrêté négociation yi na arrêté xam nga lu ñu laaj président de la République yi am la cinq mu delloo caabi ji dem yoonam président de la boo bëggee jàmm ci réew mii mu jàmm ji gaaw dañoo waxoon ak yow ñaari mandat Senghor loolu la defoon wala defukoon waaye jamonoom la woon mais président Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla dimbale mu gën fi yàgg mandat bi yokku ci dara. lii Macky Sall def moom musu ko nangoo def bu laalee mu dëgër mu bàyyi. kenn musu gis lu mel nii yow monsieur le président yow kenn yaa ko fi def te du continuer duñ la ko may bàyyil réew mi ci jàmm bàyyil réew mi ci jàmm bàyyil réew mi ci jàmm bàyyil réew mi ci jàmm sa jeex na demal bul fi xëccoo bàyyil laxas laxas yi yi ngay def njuuj njaaj nga waxoon da nga daan defal ay njuuj njaaj njuuj njaaj yi na arrêté Sénégal kenn du ko yor ci njuuj njaaj député opposition bi laay wax nag foofu dama leen ko yónnee ay baat lépp lu ñu indi assemblée mu laa lor askan wi askan wi moo leen fi teg lànk leen lu ñu indi assemblée xam ne lii suñ ko watee askan wi dee mais bañ leen parce que yéen askan wi ñoo tax ngeen nekk député mais président daay moom da yaakaar ne député yi moom député am la yoo xam ne rek moo leen di awal fii dugal fii génnal fii soxna su baax soosu xoolaatal sa bopp sa député gi Macky Sall joxu la ko si député gi sa quartier ñi nga àndal di politique ñoo la fal. balaa ngaa jël ay décision wala ngay def dara waroon ngaa yëgoo ak ñoom te lii nga def ni yàlla dana ko àtt yomal xiyam parce que loraange la mandat dañ ko fay fekk mu am limite limite bi jot na monsieur le président de la République bàyyil Sénégal ci jàmm ci jàmm lañ la woo yéen ñiy négocier négocier la nag moom mais Ousmane Sonko amul lu muy négocier parce que dañ ko yóbbu fa mu nekk yóbbu fa boppam gaañ ko tooñ ko toroxal ko toroxal ay mbokkam fitnaal ko kooku looy négocier ak moom. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant métti na waaye du ñu toog du ñu seetaan réew mi ñoo ko moom dégg nga ko président daal bi rek moom ñëpp a ci yem du Sénégal daf koo jël rek di ko windee leen nu ko neexee asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.